RFM Matin RFM Matin émission bi yee sunu gan Abdou Karim Fofana ministre urbanisme hygiène publique ak logement salaamaaleykum. waaleykum salaam sëñ Babacar. ñuy nuyu itam El Hadj bala ñoo soobu ci wàllu logement sociaux yi nga xam ne am na lu yees lu ci am dañuy njëkkee li ñu dégg nga wax ci Fatick euh, ci euh, tuurukaayu mbalit bi ñuy wax mbëbës nga xam ni ren am na juróom fukki ak benn cinquante et un ans fa dëkk fan yee génn ca mbedd ya taxaw ci buntu Mbeubeuss googu ne nañ ko fa jëlee ndax mu ngi wéy di leen lor seen wér-gu-yaram ak euh, seen environnement nga ni yëf yi dee su ko tuxal euh, lu tax. waaw maa lay nuyu Babacar di nuyu ñu ñuy déglu yëpp ak waa RFM waaw fan yële dama gis ay site internet yu wax ne man dama ne dañuy tëj Mbeubeuss ma ne leen déedéet waxee su ko noonu dama ne woon euh, état du Sénégal bi nga xam ne mm, président Macky jël na nguur gi dafa am lu mu wax ne ni ñuy gérer mbalit yi Sénégal dafa dem ba jéggi dayoo optimisation bi war nañ ko def fexe ba circuit yeeg processus bi ñu gën ko professionnaliser waaye nag infrastructure yi ñu xoolaat ko ndaxte mbalit léegi ne nekkatul lor dafa bari njëriñ ñu xool fu mel ni mbëbës nañ ko réhabiliter mais yemuñu ci mbëbës kese dafa bëri ay décharge yoo xam ne yi dañ leen war a réhabiliter yi dañ war a def li nga xam ne mooy résorption progressive donc l' état du Sénégal ma leen doon njëkk wax ci information mooy tooguñu rek banque seeni baaraam ne nañ seetaan rek ba keroog yàlla di def déedéet dañu def li nga xam ne mooy Promojet programme de modernisation de la gestion de l'économie des déchets soumettre Banque mondiale agence de coopération espagnole agence de coopération française ak banque européenne d'investissement programme bu mag boo xam ne dafa war a soppi xar kanamu Sénégal ci wàllu mbalit ndaxte gis ngeen ko boo génnee Dakar buntu région booy dem da nga fekk ay jalu mbalit ak yu demee noonu léegi nag li ci jiitu mooy mbëbës mbëbës moom mooy peut-être décharge bi gën a sauvage mais bi nga xamante ne moo gën a yàgg ci histoire du Sénégal président de la République ne nañ ko restructurer li nga xamante ne moom mooy euh, résorption pour pourquoi. mais est-ce que foofu dara mënati na faa nekk. waaw dara ak na ko dëkkuwaay dëkkuwaay yu wëroo ak ni Sénégal yaatoo ak ni. àll bi yànjee mën na su dem loolu ngeen bëgg nàccee def xaalis dem sanc ko feneen. tëj mbëbës nit ña nekk ci jàmm. waaw xam nga mbëbës lor bi dafa yegg si ba noppi ñu koy seetaan boobu ba léegi li njëkk mooy balaa nga koy tëj sax da koy defaraat ndaxte doo xëy rek bàyyi ko noonu bàyyi fa ña fa xale yi di fa liggéey tey mbëbës boo fa demee am na 1800 personnes yoo xam ne ñu ngi fay xëy doon ay recycleur di di di am seen wërsëg ci loolu mais état du Sénégal waru leen abandonné ndaxte rek amatuñ ci soxla li war njëkk mooy faj mbëbës boo fekkee lu feebar da koy faj état du Sénégal décision bi mu jël mooy dossier bi bu jàlleeg jàmm conseil d'administration banque mondiale ak ñi nga xam ne ñoo ko war a financé ñu def ñu def restructuration de mbëbës restructuration bi ni ñu koy defee dafa am benn phase de sécurisation première année bi dañ koy sécuriser muré ko fi nga xamante ne moo daan génn mbalit yi ball di dem ci kër nit ñi dootu fa demati ñaareel ba Babacar Fall mbëbës dafa bëri ay xale yu fay liggéey travail des enfants defe naa ne kenn ñaanu ko yàlla rawatina nag ci bërëbu euh, bërëbu liggéeyukaayu mbalit loolu tamit état du Sénégal def ko sécuriser ko am na ñoo xam dañ leen war a fay impense jël seeni kër defaraat site bi ba sécuriser ko après deuxième année ba quatrième année ñu def li nga xam ne mooy remodelage dajale mbalit bi benn côté comme dëkk yu mag yëpp man bi ma nekkee ministre ba léegi dem naa fu ñuy wax Clermont-Ferrand gis naa ni ñu def lu raw mbëbës lañ amoon y a vingt ans lañ ko jël defar ko euh, jal ko def ko montagne végétaliser ko ba tey boo fa demee doo gis xet doo gis dara donc am na opportunité bu am mooy ñu defaraat ko benn côté bi. mais loolu kañ lay doon euh, délai bi kañ lay doon parce que c'est pas la première fois ñuy dégg naan mbëbës naa ñu ko defar naa ko mais chaque fois la France a mis eh, vingt ans effet lay doon dañ koy wax mais après dara du ci sotti tey ban délai nga mën a joxe ne si dañuy tàmbali yeesalaat gi njoogu loolu projet grand projet boo gis dafa am processus avancé nañ banque mondiale incha allah février la war xool document bi ci conseil d' joxe avalam moom ak ñeneen euh, bailleurs yi bu ko bu ñu ko defee rek ci année bi dinañ lancer appel d' offre yi commencé mais dama la bëgg a wax processus la boo xam ne yombul ndaxte tey doon waa waa Mbëbës ça fait presque quarante ans cinquante ans ñi ngi muñal waa Sénégal loolu yëpp di leen fekk si mais tey bu ñu demee ba nar ko def usine nar fa am ay liggéey ñu jëli ko dem yóbbu ko feneen mais wërsëg bi tey bu ñëwee parce que euh, tey yomb nañu toog naan Mbëbës ay lor rek a fa nekk déet ay njëriñ ñooy nar a ñëw. ndaxte tey dëkk boo dem boo demee Madrid boo demee Maroc nga mu toll nii moo fa am waaw loraange mais àdduna day dox nga wax ko àdduna day dox boo demee Màkka sax pën mën na am am na lu fa ne woon loo xam ne bi yonent bi ñëwee soppeeku na du dëgg donc ñoom muñal boobu nga xam ne muñal nañ ko waa Sénégal cinquante ans mu métti lool métti ci ñoom ñu dem ba nga xam ne ci juróomi at yii di ñëw la ñu war a soppi def usine yi nga xamante ne ñoom ñooy traité ñu ne déedéet nañ ko fi jëlee yóbbu ko feneen mbëbës ci boppam bu ngeen fa naree def ci xaalis ak ci ay jumtukaay dem nga sax neexul yegg Rebeuss sax problème la ndax fi nga war a jaar yëpp war ko traverse ci ay quartier ci ay xataay ki embouteillage mhm. moo tax ñu ni def ko feneen gënuta waaw xam nga Sénégal dafa am expérience bu douloureuse ci loolu président Ablaye Wade amoon na projet bu ambitieux defar li ñuy centre d'enfouissement technique bu Sindia waaye nag politique politicienne yàq ko te man nag loolu mooy sama rôle fexe ba mu askan aussi ñoo bañoon askan ñoo taxaw ne carrément soxlawuñu askan bi askan bi dañ leen expliqué wul dëkk yi am ci monde bi New York Paris lépp ci ci pegg bi dana am foo xam ne fa la ñuy traité mbalit donc bu ko ñoo ñu nangoo nga dem yeneen dëkk ñu nangu ko te Sénégal nanguwuñ ko c'est parce que expliqué wuñu leen ko bu baax wala am na ñu fa ne ñoo xamante ne ñoo jaxase population yi ndaxte mënoo ñëw ne da ngay def centre d'enfouissement technique teg foo xam ne dañuy recycler nit ñi ñëw di ci liggéey xoolal tey 1800 personnes yi nga xamante ne autant yaa ngeen di dégg ñoo xamante ne dañ naan nañ fi jëlee mbëbës am na ñoo xam ne ñi ngi taxaw ne buñ fi jëlee mbëbës ñaareel ba gestion des déchets dafa am mu laaj mooy optimisation des circuits am na distance yoo xam ne boo ko dawee rek daanaka li ngay def jaratu ko parce que euh, carburant bi dina coûter plus cher nit ñi fa ñuy dem donc zone bu nekk il faut mu am tey boo demee ba Mbour am na décharge de Gandigal boobu tamit même chose dañ koy restructurer boo demee dans le nord Gandon ak yeneen ak yeneen donc programme bi dafa rëy dañuy restructurer Gandon restructurer euh, nu mu tuddati Ziguinchor tamit ci wetam am na. zone centre am na tey boo demee Touba nangu nañ seen bos waa banque euh, islamique de développement ci PGDSU defaral na leen CIVD finalisation presque il c'est à quatre vingt pour cent boo demee Tivaouane defal nañ leen boo demee Kaolack defal nañ leen donc loolu yëpp processus la boo xam ne il faut ñu nangu ko Sénégal dañ bëgg lépp di soppeeku mais lu ñëw rek ñu waxee ko sentiment te du ñu jël temps wu bàyyi processus yi mu jàll. yombul nag waaye li ñu wax itam dëgg la fii ngeen toog rek ci rajo yeeg ci télé yi naan nañ def nangam ñu toogi at du ñu gis dara. waaw mais euh, defe naa ne Ila Touba diggee nañ ko. te bi ñu toogee ci ñeenti at ñëw na ak yeneen ak yeneen ak yeneen ak yeneen defe naa bu ñuy wax li doxul war nañ mën a wax li dox tamit mën naa la ci limal lu bëri bëri bëri bëri bëri dafa mel ni rek électricité bi biñ ko wàññee toogu leen fi ne alhamdulilah wàññi nañ ko mais bu ñu nee ñi nga xamante ne yeyoowuñu subvention dañ ko dindi ku mel ni tey Babacar Fall war na ma këram ñeenti climatiseur nga fa ñetti télé nga fa mu bëgg a fay ak même subvention ki nga xamante ne ñaari euh, ventilateur la yor ak benn télé. boo demee ba ci ambassade yaa ci coowal courant gi nga xam ne mooy. moo moo yànqal seen nguur fi ñu toll nii. non non yànqalu suñu nguur c'est-à-dire li am Babacar mooy réew mi dañ ko war a waxtaan ak Sénégalais yi nit bu ñu la dénkee nguur jox la responsabilité war nga am sañ-sañu janoog nit ñi ne leen man kat électricité c'est de solidarité nationale dafa am ñoo xamante ne ñi ngi am courant te état moo leen di subventionné état mooy dagg dara ci li mu waroon jàppale keneen jox la ko am ñoo xam ne ñu ngi ci fu sori ci Sénégal te amuñu ko am na entreprise yoo xam ne tey peut soxla wuñ subvention am na ambassade sax yoo xamante ne ay ay ay ay pays étranger ñoo leen fi yebal seen première tranche zéro ba vingt cinq mille état bi day ñu subventionné. xam nga loolu xam nga xam nga loolu tam problème la bu ngeen toogee naan dañuy euh, seeral courant bi ngir waa àll bi jot ci courant bi euh, Sénégal benn askan la waa taax ak waa kaw a ci yem. luy métti moom métti moom métti la rek. mais mais looloo tax mu war a am solidarité nationale. solidarité nationale du état rek a ko yooyoo. yow impôt bi ngay fay Babacar Fall am na ci loo xam ne dañ ciy rocci jox ci nit bourse familiale am na loo xam ne dañ ciy rocci defal ci waa Tataguine Tali wala teen loolu mooy solidarité nationale dafa mel ni tey jii man ci affaire logement yi ñu ngi waaj a ubbi benn pôle urbain bu tudd Daga Xolpa mais on l'a on l'a mis en place ci principe solidarité nationale ñi nga xam ne dañuy tabax kër gu weesu 300 mètres carrés wala 600 mètres carrés suuf si ñuy jënd suuf si ñuy jënd état jaay ko ci. anam boo xamante ne appel d'offre bu transparent la moom la ñuy jël xaalis boobu dem subventionnel ci ki nga xamante ne moom peut-être logement social la soxla te moom mën na am tamit amul possibilité fayal boppam aménagement bu ko defee moom am égout am lépp donc solidarité nationale dafa war a doon rek loo xamante ne ñëpp kuy dund ñëpp doon réalité mais est-ce ne woyof na lool argument léger parce que ñëw naan ay solidarité nationale ñi ko nar gën a yëg dafay metti ñoom est-ce na banque mondiale ak euh, ñoo wañ seen loxo ne leen subvention yi ngeen dindi ko déedéet njóogu état du Sénégal état bu souverain la Barack Obama ñëw na fii wax loo xamante ne dëppoowul ak valeur Sénégal ñu tontu ko banque mondiale bu ko defee tamit dañ koy tontu ñun dafa am loo xamante ne moom moo am. Sénélec ñëpp a taxaw fii ne euh, d' abord at yu mujj yi gis ngeen trente milliards de perte la nee ngeen. pétrole beeg gaz bi bu dikkee tubaab bi dañuy def nii ay royalties mais bu ñu bëggee loolu suñu société yi il faut ñu am capacité d' capacité d' boobu kat moo koy joxe. mais consommateurs yi état du Sénégal état du Sénégal def na ci li mu mën léegi nag bu ñu amee objectif ne ñun Sénélec dañu war a gën a am doole dañu war a gën a investir ci plateforme yi gis ngeen ko Sénélec tey def nañ ko holding dina am partie boo xamante ne day gérer euh, l'avant pétrole mooy li ñuy wax amont ak aval ak yu demee noonu mais bu ñu bëggee muy dem am na charge yoo xam ne dañ ko ko war a teg liir par exemple tey bu nee électrification rurale ne Sénégal depuis euh, defe naa deux mille mille neuf cent soixante ba deux mille deux mille quatre cent villages ñu am ñu dem euh, euh, deux mille douze ba deux mille dix neuf ñu def loo xam ne ëpp na lañ defoon ba mille neuf cent soixante c'est parce que effort yu rëy la mais bu ñu demee ba jamono ba nga xamante tey nag Sénélec dafa yor ñaari impératif investir ci loo xamante ne da koy andil dara ëllëg ak loo xamante ne moom mooy résorber le déficit pour les populations mais bu boobaa nit ñi dañ war a comprendre te loo xam ne war nañ ko wax sa facture zéro ba vingt cinq mille état bi bàyyil la sa sa subvention muy six cent onze mille sénégalais yeneen trois cent mille yi nga xamante ne ñoom ñi ngi fay ak ay entreprise ak ambassade yoo xamante ne ñoom ñi ngi fay te amatuñ subvention bi ku ci sa facture doon cent mille courant bi lan la yokku six mille francs kese entre six ak dix pour cent. da ko xeeb noonu. di koy doy xeebu ma ko ñi koy génne man dama koy génne sama poche mais dafa am lu yenu maanaa ak lu yenuwul maanaa y a quelques années dañ te boobu waroon nañ jaajëfal ñetteel ba tamit man damay doxee li nga xam ne mooy solidarité gouvernementale bu ne Sénélec mi ngi dox doxul du man du yow ñoo ko war a wax du politiciens yi ñoo ko war a wax spécialistes yi ñoo ko war a wax agence yi nga xam ne ñu ngi noté Sénélec Sénélec di dem dans le dans le marché obligataire di leb xaalis ñu koy labal ci taux yu baax mais société boobu lu dox la donc nit ñi dañu war am conscience boobu ñu bàyyi di politiser lépp 2011 projet wu centre d'enfouissement technique wu sa Sindia lii moo ko yàqoon tamit nit ñi di ko politiser wéy Ablaye Wade daf ñu bëgg a defal lii daf ñu bëgg te pourtant Ablaye Wade lu baax la bëggoon dafa bëggoon rek mbëbës ñu am ci évolution tey mi ngi nii def nañ fay milliards tëj ko donc ñun homme politique yi dañ war a am responsabilité fu ñu mënti bokk ak fépp foo xamante ne fa lañ mën a askanoo bu njëriñ ñëwee ci sénégal yi ñu bàyyi mu egg ci sénégalais yi te bañ di leen nax ngir suñuy élection yi waa ji ñëw wala yeneen ak yeneen defe naa hmm. Sénégal dañu war a dépasser loolu leen luñ bëggoon waxtaan ak yow ginnaaw waxtu wi li ci des as lëf la mooy euh, semaine bee ñu génn euh, da ngeen euh, semaine ba bee ñu génn sax waaw li ñuy wax cent mille logements sociaux yi nga xam ni yéen a ngi koy ndamoo booba léegi nit ñi gisuñ dara waaye da ngeen ni ku bëgg bindu bëgg cee am na nga dem ci internet daal di tàppee naka cent mille logements point com cent mille logements point com ba ngeen ko ubbee nag ñi bindu moom xam naa léegi ñu weesu cent mille. Euh, beneen coow a ngi noonu. waaw waaw xam nga Babacar li ma la wax rek président yéeneem la am dafa seetlu ne sénégalais yi ñu ci bëri dañuy góor di fay luyaas ñeneen ñi tamit euh, di di épargner en même temps pour mën a moom sa kër. te moom sa kër dafay structurer économie tey banques yi boo leen ne woon crédit cinq ans ak crédit vingt ans bu dëgër boo xamante ne c'est hypothécaire ndaxte dafa téye këru jàmbur garanti ko loolu moo leen gënal fuuf ñiy liggéey tamit bu ñu fexee ba moom seen kër. bu ñu demee vingt ans après seen doom yi dinañ mën a leb ci xaalis bi nga xam ne moom lañ moomee seen kër fay ci njàng ubbil seen jabar bitik donc day structurer économie dëkk yi ñu ko def yëpp dafa am solo tey boo demee Maroc 2004 ba 2015 programme logement social bi andil na leen 1,4 pour cent de croissance par an ak 1 million d' emploi ci jamono jooju donc président ci loolu lañu ñu dugal ñaareel ba. Euh, Babacar dégg naa la léegi nga ne ñu koy ndamoo damawuñ ko dañ nekk di ci liggéey dañ nekk di ci góorgóorlu président bi mu ñu joxee foofu ba léegi ñu ngi organiser wu waxtaan ak maire yi waxtaan ak acteurs yi lancé nañ comité cent mille logements déglu ñëpp ba nekkat kër goo xamante ne diggante dix ak douze million lay jar ñu def ko soixante pour cent dans la la dans le triangle Dakar Thiès Mbour ak quarante pour les villes du Sénégal yi nga xam ne ëpp nañ dix mille habitants lu mën a nekk la matériaux yi am na Sénégal tey boo demee Sindia am na usine bu tudd Twyford boo xam ne day defar euh, nu mu tuddati day defar karo te loolu tamit bu courant Sénégal cheroon duñ fi ñëw boo demee tey fii ci Sébikotane Fabri Metal la nga fa Someta nga fa di defar fer nga xam ne courant la ñuy toggee électricité moom la ñuy toggee. cent yooyu. moom laa la bëgg a li li tax mu mën a nekk. dama lay wax a jot. dama lay wax cent mille d' abord inscription bi dañ bëgg mu leer sénégalais yi dem bindu cent mille logements point com premier jour bi ñu ubbee système le soir à 23h on était à 10 000 inscrits samedi soir on était à 28 000 inscrits démb 22h balaa may tëdd gis naa ne on était à 42 000 inscrits. loolu nag yaakaaru sénégalais yi la ñun duñ ko foowee bépp sénégalais mën nañ ci bokk dafa am décret bi ñu loon nu ñu ko tegee ci juróomi at la donc nit ñi bu ñu bindoo tamit nañ ko segg dafa am ay conditions d'éligibilité conditions d'éligibilité yi lan la képp koo xam ne sénégalais nga da am nationalité sénégalaise ñaareel ba mosoo am kër ci Sénégal doo mel ni Babacar Fall bëgg a dajale ay kër yu bëri wala njóogu ñetteel ba sa revenu warta weesu quatre cent cinquante mille francs dafa am décret bu ko wax mën am dinañ ko évoluer loo léegi nag loolu bu defee nga bind ay condition duñ la bàyyi noonu dinañ génne fichier bi ne diwkat laaj njóogu jéen bindu na ñu def enquête ci yow xam ndax dëgg li nga déclaré loolu la bu fekkee am na nag état du Sénégal dafa am dispositif bu ma teg boo xam ne moom mooy la taxe ciment kilogramme de ciment boo gis rek état du Sénégal prélevé na ci un franc muy tonne bi deux mille francs ñu versé ko li nga xam ne mooy fonds de l'habitat social di nga dégg fii ak début d'année ci conseil des ministres yi ñu créé ko li ñu xayma mooy mois de septembre dix milliards ngi woon ci conte boobu bu ñu ko demee fii ak fin d'année 31 décembre mën na am dina ay quinze milliards état du la ko ngir ngay def spéculation suuf si la ko joxee dafa ay conditions da nga war a tabax ay logement yoo xamante ne logement sociaux la ni ko décret bi waxee ñaareel ba mu ne la boo ko tabaxee ba noppi danga nga ko war a jaay à un prix encadré at mu jot dinañ ñëw saytu boo deful li nga wax ñu nangu suuf si jox ko sa beneen moroom boo xam ne mën na tabax léegi nag état naka lay def pour yombalal la loolu mooy diggante route nationale bi ba fi nga xam ne foofu ngay def sa projet parce que souvent ci ay dëkku àll dañ lay defal li ñuy wax réseau primaire hors site la tali andil la ndox indi la courant andil la assainissement defal la poste courant ne la nag sa biir site na nga ko répartir cinquante pour cent yi nga def ko logement social vingt pour cent yi nga def ko logement des Sénégalais l'extérieur ndaxte suñu mbokk la ne bitim réew ñoo xam ne mën na am perdre nañ confiance bu ñu yónnee seen xaalis lu bëri du mën a nekk ñetteel bi nag mooy euh, fonds de garantie ñi nga xam ne dañuy jënd ñu ci bëri yoruñu peut-être salaire yoruñu revenu bu doy ñii ay informel lañ ñu garantir leen ci banque bi ak li nga xam ne mooy dispositif de bonification taux d'intérêt yi ñu wàññi ko. kiy jaay caaf bi ci mbedd bi mën na ci am. ci logement social bu bu répondre li nga xam ne moom mooy critères yi ku ne mën na bindu d'ailleurs Babacar nga may ma rek une minute ma wax ci loo xam ne lu am solo la mooy logements sociaux yi du ñu yem rek ci inscription ci plateforme bi à partir de la semaine prochaine euh, di ngeen gis benn caravane bu mag boo xam ne day wër Sénégal dem surtout ci ñooñu nga xam ne peut-être dañ leen di fàtte mooy ñi nga xamante ne ñu ngi góorgóorlu di jaay caaf yor seen boutique yor seen commerce yor seen artisanat te peut-être mënuñu sax dugg ci internet yónni ay nit yoo xam ne dañ leen di inscrire ubbil leen compte defal leen li ci war ba nga xam ne ñoom dinañ ci yem ak chance yendoog jàmm